الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من نزل قوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki جلد yu نكتي yi nekk ci gox yu fasantikoo yi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 ma jël si waat ci kartanal yàlla fas yéene rek sof ak yéen li sosoon ak yéen ci yaa ayuha amano yi nekk ci alquran tey nag maa ngi ci juróomeel bi mu nekk ci suratu baqara aaya cent quatre vingt ci aaya cent quatre six mu yaa ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyaamu muy aaya joo xam ne suñu borom dafa ñu ci digal koor soo ko doon firi ci yax bi waxoon naa la ba foo ko fekk rek la yàlla di farataal bakkan da koo sib waaye bu ko xel càmbaree ba présenté ko bakkan bakkan dana yëg na li muy sib moo gën ci moom koor de bakkan sib na ko bàyyi lekk bàyyi naan bàyyi jotee fajar xar ba jantu so weeru lëmm bakkan sib na ko ndax bakkan bu sañoon di lekk rek di naan rek su ko defee timit di nelaw rek moo tax sax ci xiif ci la ko yàlla yareewoon bim bakkan bakkan di bakku di bajantu ci kanam borom bi borom bi laaj ko ne ko yow yaay kan ak man maay kan mu ne ko yow yaay yow man maay man mbugal mu yàlla teg ko ko terewut bakkan di bayantu waaye keroog ba yàlla ne dugal leen ko ci xuuru xiif ñaari fan ñett génnee ko laaj ko yow yaay kan ak man maay mu ne ko yow yaay borom bu màgg bu tedd bi man maay sa jaam bu xeebu bu doxadi bi moo tax bakkan loola yaroon ko ci cosaan rek moo ko mën a continuer di ko yar mooy xiif waaye bakkan fekk mi ngi regg du regle waaye boo ko bëggee regle na nga ko xeeñ ak regg rek su ko defee mu am jàmm moom nag gis nga yàlla ci mbaaxam ak yërmandeem ñëwenti gim ñu ñëwenti moo tax sax waxut katabtu alaykum as siyaama mais daf ko def maanaam Ah, fi'lul murakkab ne kutiba farataaleef na alaykum asiyaam te ki ko farataal moom rek la bu ko defee nag ba bu ko waxee tamit suñu ñëwanti ñëwanti gi ñu ñëwanti ak yërëm ñu ñu ne ko ah yow yàlla metti na di ñàkk a lekk ñàkk ñaan weeru lëmm mu ne ah kay du yéen rekk nag kama kutiba alladina min qablikum waay waay defaloon naa ko ñi ko ñi leen jiitu woon te nag coono tiis tiis naqar bu ko ñëpp bokkee xenu rek moo woyof kon du yéen rekk nag am leen jom ñe leen jiitu woon kat lii ma gàcc leen gàccoon naa leen ko te xonkuwuñ kon bu leen fi xonkooti ñu ne ko waaw luñ cay amee mu ne laallakum tattaquuna wóor na ma nàññi ne su ngeen xooree ni ma leen xoorloo waxalaa kulli xaal da ngeen ci jëlee xam jom da ngeen ci jëlee ragal yàlla da ngeen ci jëlee ak mbaax da ngeen ci jëlee teet lépp lu ngeen moomutoon ngeen wan ko gannaaw ndax comme li ngeen moom moom ngeen sañ wan a gannaaw ci bëccëgu weeru koor ca lekk ya ak naan ya soxna ya rawatina nag li nga xam ne moomatu leen ko damaa bëgg ngeen taamoo ci bàyyi li ngeen moom ngeen man cee jàngee ba man caa bàyyi li ngeen moomut laallakum tattaquuna ñu ne ko mbaa lu yàgg mu ne déedéet ayaama maadudaat ay fan yu néew yu ñuy lim la te logis gis ni man ko lim rek bariwut waye sama yërmande sax de pare ngir lebal ci ñent fa man minkum maridan li di fan yu neew kep ku ci koy febar wax deug yalla febar ñaar la febar bo yaakar wir kon lebal nala, la sa yo demee ba wir rek ngeen fay ma su fekke da ngeen ci febar febar bu ngeen yaakaru tëg wir te munu len ko bolé kor waxatuma lebal waaye jéggal naa leen kon nag fa man kaana minkum maridan aw ala safarin ba tax mu dog fa iddatun min ayaamin uxar ci feebar boo xam ne borom yaakaar na wér waaye ñu ne ko tamit ji nga xam ne yow yàlla ñun ñëpp mën a déeréet ñi nga xam ne dañoo màgget ba mënuñoo woor wala ñi xam ak wérdi ba mënuñoo lebal naa leen ko tudd ma leen ko fayeeku wa ala alladina yutiquunahu fidyatun taamu miskinin bu ko defee léegi nag miskin bu ne nga jox ko lu toll liibar waaye nag fa man tatawaa xayran fa huwa la lahu bu ngeen ca dollee tamit nag mu gën a baaxati waaye tak mu ne tamit yéen ñi nga xam ne da ngeen a tukki ba taxoon ma ne lebal naa leen waaye waaye su ngeen ko mënee ànd ak koor nag te du leen lor du leen tiis moo gën ci yéen wa an tasuumu xayrun lakum in kuntum taalamuuna ñu ne ko waaw weer yi fukk ak wan weer nga ñu xoorloo mu ne dama leen dàkkal weer wi nga xam ne ci laa wàccee alquran def leen ko muy seen weer bi ngeen war a xoor muy sëhru ramadan alladi untila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinaati min alhuda wal furqaan léegi nag ku fi weer wow fekkati may naa la dogal naa ci yow nga xoor ko ndax bu njëkk bi koor du doon forcé ku man nga xoor ku mënut wala nga man bu la neexee nga ñàkk a xoor ta nga lele ñàkk donte man ngaa xoor yàlla na léegi nag fa man shahida minkumu shahra falyasumhu ku fi weer wi fekkati xooral ko man nga ko soo ko mënul ta man nga koo mani lebal naa la boo manee nga fay ma ku ko mënul te doo ko man mukk jéggal naa la lebal naa la ko du ma la fayeeku mukk wa man kaana minkum maridan aw ala safarin lebal naa la fa'iddatu min ayaamin uxar ñu ne ko lu tax nga ñuy lebal mun a yuridillahu bikumul yusra rek maa bëggul lu yomb ci waaye su ma fekkoon dama leen ko gàcc mu son mu métti wala yurdu bikumul usra wallahi bëgguma ngeen xam benn jafe-jafe lu tax nga ñuy fayloo mu ne damaa bëgg lim ba mat muy fanweeri fan ya mbaa ñaar fukki fan ya ak ñeent moo tax ma ne wali tukmilu l iddata wali tukabbiru laa ala ma hadakum wa laallakum tashkuruna bañ ko defalee lii ba pare nag jaam yi taxaw di laaj yàlla mii sant ñu koor ku sori la bañ koy joxar mbaa ku jege la bañ koy xoo mu ne leen buñ la ko waxee daal ku jege laa wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qaribun ujibu daawata daaci ida daani laham salakon fa laystajibu lii wal yuminu bi laallahum yarsuduun suratul baqara aaya cent quatre-vingt-trois jëm ba ci aaya cent quatre-vingt-six aaya ji nag aayaat yile di juróom benn aaya cey lim hëmbu ci xéewal cey lim hëmb ci xam-xam cey lim hëmb ci njariñ suñ ko xamoon danañ ngéejuhu xat mi yëpp di koor ñi di ko xoor di ci jaamu suñ borom ndax suñ borom xeet yim def ci kawnu bi ñeenti façon xeet a fi ne àdduna bi am na loo xam ne boo ko làmbee jamaat la mooy lu xamut ruuxu am na fi loo xam ne nabaat la muy gàncax xam na ci loo xam ne xayawaan la muy dundat xam na fi loo xam ne insaan la ñeent ñi ñu siq àdduna bi jamaat nabaat xayawaan insaan ñett yépp kenn ku ci nekk dafa am rôle bu la fi yàlla indi te yaa ngi ko taxawe mbooleem kawlu bi lépp lu ci yàlla gàcc jamaat ma ngi koy def lépp lu ca yàlla gàcc nabaat ma ngi koy def lépp lu ca yàlla gàcc xayawaan ma ngi koy def jamaat li ko yàlla gàcc dafa ne ko góor góorlul nga takkaayu sa ndigg liggéeyal nabaat nabaat mooy sa sang muy gàncax yow jamaat foo toll dee ko liggéeyal xoolal suuf mii jamaat la cëy lim defal nabaat sa jiwu wii nga dem di ko ji nabaat la cëy lim defal nabaat jamaat la tey lim defal nabaat xoolal ma sa hilliir bii nga koy bayee jamaat la cey lim dimbale ci gàncax lim lim liggéeyal jamaat sa machine bi nga tracé ji mbaa nga tracé ko di xotti ja jamaat la cey lim liggéeyal nabaat moo tax ci gàttal daal yàlla dafa wane na jamaat yow nabaat mooy sa sang takkaayoon nga di ko liggéeyal moo tax liggéeyal na ko ci lu ne liggéeyal na ko ci fu ne ci façon bu ne résultat bu nabaat am muy gàncax rek boo toppee tànk yi jamaat moo ko ko jox waaye mu ne ko yow nabaat nag xayawaan yi ñooy sa sang takkaayoon nga liggéeyi leen moo tax fu nabaat neexee bu ko fa xayawaan fekkee rek lekk ko fu ñax gën a neexee fu ñax gën a rafetee ñu defar ko jox ko xayawaan yi ngooñ ma ñu jox ko xayawaan yi lépp lépp rek muy muy dugub jë ñu jox ko hayawan ya waye timit lepp lepp rek luy xeytu nabat rek hayawan ko tax a koy liggeyal ñu ne ko yow hayawan nak insaan mo la tax insaan moy sa sang demal nga takkayu liggeyal ko mota fo foo fekk xayawaan ma ngay liggeyal insaan yaa ngi nii sa mbam mi diko ko te mu hëpp la dole nga ko sa fas wi la yang ko tak mu lay liggeyal gëléem gi xale bu ndaw laxab ko ci kawam mu koy liggéeyal yeneen xayawaanaat yi mel ni xar yeeg bëy yeeg ah, loo ca soxla nga rendi lekk te kenn la wax da tooñ kon nabaat jamaat mooy surgaam la ko ca yàlla santoon lépp ci la ko liggéeyal liggéeyal na ko ko nabaat xayawaan mooy kilifaam la ko waroon ci moom yëpp def na ko xayawaan insaan mooy kilifaam la ko waroon ci moom yëpp def na ko mu des nag insaan nag moom insaan nag yàlla ne ko man maay sa kilifa yow nag moom man nga am ak contact ñi ci des ñëpp yow lañ xamoon ak contact moo tax sax yow laa mujj bind bi ma lay bind ak lii ma doon bind yëpp a pare ma ne la kaay nga jëriñoo li ma bind waaye nag andiwuma la fi ngir lekk rek andiwuma la fi ngir naan rek huma la fi ngir forek andi huma la fi ngir ngay tak jigen ñeeg di xam ak ñom contact rek huma la fi ngir fecci motax mu ne afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turjauna taqul ma andi labi suratul muminuna aya 115 mu ne ko yow yalla lo ñu fi ande nak wax nga naba wax nga jamaat luy rolam ci nabat wax nga nabaat luy rolam ci liggéeyal xayawaan wax nga xayawaan liy rolam ci liggéeyal nit nit nag lan mooy rolam mu ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni binduma nit ak jinne daal lu dul man nañ ma jaamu rekk te wéetal ma maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yutimuni inna allah huwa razaqu zul quwati almatin mu ne jaamu gi ma leen sant ñi ma koy jaamu tamit dama bëgg ñi bénéfice wu ci man mais binduma leen ngir bénéfice leen te buur boo gis dafay bénéfice baadolo ya dafay bénéfice population ba moo tax man nag maay buur boo xam ne maay bénéfice sama population ak samay mbooloo waaye ñoom duñ ma bénéfice woo moo tax mu ne soxlawuma seen wërsëg bëgguma ngi nekkal ma ci naaj wi ma leen nekkal ci ker gi bëgguma tamit lañ jëlee ca naaj wa buñ ko ëndee ci ker gi ñu koy togg di ma ko jox may lekkal ak yooyu moo tax mu ne maa uridu minhum min mu dellu ca ña ca naaj wa wa maa uridu an yut'imuuni mu dellu ca lañ jëlee ca naaj wa buñ ko indee ci ker gi war koo togg toppatoo ko mu ne loolu taxul maa jóg ñu ne ko loo ko def mu ne man li may daanee laay moo lay daane inna allahu wa rasaqu zul quwwatil matin moo tax soxlu ko ma nekkal ci ker gi soxluwuma ko ma nekkal ci naaj wi te demal nga seeti ko suuratu Zaariyaat ay cinquante six su ko defee na kon ñu ne ko kon lu tax nga bind ñu mu ne damaa bëgg bind leen seen làmmiñ yi fuñ toll di wax laa ilaha illa allahu muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama di seede sama kenn ki man yàlla xol yi di ko dëggal cër yi di ko pratiquer su ngeen ko defee bénéfice wu ci man su ngeen ko defut perte su ngeen ko defut jamaadaat yi lañ seen rôle ba dañ ko suyee ba pare ñëw suyee seen rôle bi yéen liggéey ga ñun liggéeyal gàncax dañ ko def ba pare jàllal di ko ñëw tamit di ma liggéeyal man moo tax mu ne alam tara anna allaha yasjudu lahu man fi samawati wa man fi l ardi wa samsu wal qamaru wa nujumu wal jibaalu wa sajaru wa dawaabu wa kathirun min annaasi waaye wa kathirun xaqa alayhi al azabu wa man yuhini llahu fa maa lahu mukrimin inna laa yafalu maa yasaawu kon seen rol bu ngeen ko suyewut wallahi jamaa daal yi danañ suye seen rôle ba leen waroon ci nabaat ba pare ñëw jàllar bi ko suye seen rol bi leen waroon yéen nit ñi ci sàbbaal maag màggal ma jant bi dugg weer wi dugg biddiw yi dugg doj ya dugg suuf ci dugg mu ne tamit bu ngeen ko defut xalaa kulli xaal nabaat yi danañ ñëw suyee seen rol bi leen waroon ci yéen nit ñi gannaaw buñ suyee bi leen wayoon ci xayawaan yi wa sajaru dugg la ko waroon ci xayawaan def na ko moom nabaat ba pare jàllal bi ko ñëw sukk di def li la war yow nit ki ki di ma sàbbaal waaye tamit bu ngeen ko defut xayawaan yi nga xam ne seen rol moo doon liggéeyal leen danañ ko def ba pare takkaayuwaat seen digg tamit di ma liggéeyal man yàlla jéggi leen fi muy wat dawaabu bu ko defee nag yéen ngeen perte moo tax ba ne wa kasirun min annaasi waaye wa mu dellu ci nit ña kon kenn du yàlla kon walillahi daru saairi alqaail allahu rabbi wala rabba siwaahu hal fi lwujudi xaqiqatun illa illa الشمس والبدر من أنوار حكمته والبحر والبر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناداه والنمل تحت الصخور السم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم fa yasturuumu wal abdu yansa wa rabbul arshi laysa yansaahu kon iskay yàlla mooy suñ borom xamuñ benn borom bu dul yàlla xamul ci àdduna bi xamul ci monde yi xaqiqa ku fi ne ku dul yàlla jant bi ak weer wi ñu ngi feeñee ci leer ak kereñ yàlla géej yi ak jéer yi ak bëbb la ci may yàlla yi picc yi ña ngi koy sabaal wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi njaaxal li ñing koy magal duusi géej yi ñing koy kabaral jeen yi sax ñing koy xoo wallahi korondong yi ñang koy xoo di ko màggal ca roon suufu tëx ya yu dëgër ya suufu doj yu dëgër ya waaye naa ne la sax yamb yi ñu ngi koy yuuxu di ko xoo di ko sant ke seen paam ya waaye nit ña nag ñàkk jom ña koy moy ci lu feeñ mu leen di sutural jaam ngi fàtte waaye borom aras moom du fàttimu ko est yàlla mu ne nag yow nit ki dañ laa bind ngir ak jaamu yàlla kese ak jaamu nag tegtal la goo xam ne gu jolli la gu dogu la gu leer la ndax luy tegtal la wéet ak yàlla ji dafa dafa leer naññ mu bëgg na nga jaamoo ko teg ko ci yoonu lislaam lislaam ñetti ponk la xam ponk bu njëkk ba mooy lu ñuy wax ci làmmeñ ñaareel ba mooy lu ñuy dëggal ci xol ñetteel ba mooy lu ñuy jëfee ci cër moo tax inna al islaama yaqumu ala salaasati daaima qawlun bil lisaan tasdiqun bil jinaan wal amalu bil arkaan su ko defee nag yooyu yëpp yey xol di fasak làmmiñ di ko wax ak cër di ko jëfe yëpp dafa mujj tënkuwaat ci ñaari baat baat bi la tënk ak baat bi la tënk tinki baat bi la tinki mooy ifaal baat bi la tënk mooy laa tafaal lépp lislaam génnut defal ak bul def boo ko xoolee nag bul def ya moo gën a néew defal ya defal yaa gën a bëri bul def ya ndax lislaam dafa ñëw ngir tinki nit ki waaye ñëwul ngir tënk ko moo tax lim ko tinki mu sañ koo xool gën a bari lim sañca lim lim sañca xool moo tax lim lim sañca xool sax mën nañ koo tënk bul xool jigéen goo takkut bul xool làngam ñuy fecci bul xool xawraay jàmbur bul xool sa xawrata fekk amoo ci soxla demeet bul xool image bu ñaaw mën nañ koo tënk mee liñ la xooloo dafa bëree bëree bëri ba kenn mënu koo tënk sa nopp yi ñu tënki la ci ne la déglul waaye lañ la ca tënk ne bu ko déglu moo gën a néew bul déglu musique bul déglu ay way bul déglu jëw bul déglu saaga bul déglu fen bul déglu xaste bul déglu rabaaj mën nañ koo tënk waaye lañ la wax tënki la kenn déglu ko kenn mënu koo tënk waaye sa làmmeñ wi ñu tënk ko ci lan bul bul bul wax lu bon bul saaga bul xas bul jëw bul rambaaj bul wax luy dog bokk waaye cey lañ la ca tënk lañ la lañ la ca tinki kenn mënu koo lim sa awra bi liñ la tinki moo gën a bari liñ la tënk benn rek lañ la ca tënk mooy jigéen gu la lewut bul sëy ak moom waaye bul sëy ak deef góor jigéen bul sëy ak jigéen gi la lew di ko jaareeg moom foo xam ne doom mënu faa juddu te mooy sëy ak moom ci gannaaw kon da ngay sëy ak moom fii doom mën a juddoo kese waaye feneen fu dul foofa daganut sa tànk yi liñ la tënk nga mën koo dox moo gën a bari liñ la tënk ne bul ko dox kon lislaam diine la ju ñëw ngir tinki nit waaye ñëwul ngir tënk ko moo tax lim ko tere moo gën a néew lim ko lim ko digal pour mu mën koo def su ko defee nag lislaam moomu tamit boo ko tinkihaatee juróomi ponk la tabax nañ lislaam ko juróomi ponk tudd baatu seede bi mu seedal ci sa xol saxal ci sa ne ashadu an laa ilaha illa allahu wa ashadu anna muhammadan rasulullahi boo ca baaxee ko ñu ne ndax dëgg la nga ne waaw ñu ne kon jullil te xam nga julli buñ la ko tekkil toon kenn xamut nu muy niru nga taxawul ba ca kanam gannaaw bi nga kàbbaaree symbole ba mooy yaa ngi wane ne sama julli jile dama ci représenté ñett yi fi ne yàlla bind na ay garab ñi taxaw taxaw rek lañ man nga ne sama taxawaay bii maa ngi ciy junj lépp lu mën a taxaw muy bati bâtiment yeeg euh, meuble yeeg oto yeeg garab yi nga xam ne dañoo xam peer ak yépp sama taxaw bi symbole la ci ñe yëg naa ne ña ngay taxaw di màggal yàlla kon danaa taxaw man tamit léegi nga ne nga ne kooxal nga ne lépp lu mën a sëgg muy bàyyi ma ya dugg malayaat nañ sa génnoona waaye tamit garab yi nga xam ne ñu lii seen bànqaas ya maa ngi leen di représenté ci sama rukkoo bile ba nga paree tamit nag nga sujjóot dugalaale lépp loo xam ne dafa tax tax fam toog rek la toog dëpp mën mënta mënutu dara gaj yeeg nañ fa taxaweeg joji mbàppaaral yeeg ak yeneen yu mel ni ñoom nga présenté leen moo tax ñett yooyu la yàlla tudd ci julli benn bu ci nekk nekk maqaama boo xam ne danga koo taxawee ci sa julli gi muy symbole boo xam ne dafa am lu mu symbole si lu mag a mag a mag a mag waaye tamit mu ne la tamit joxeel asaka ndax may naa la ñaar may naa la nga fekkee may la nga fekkeele te xam na koo xamee ne nii kama la wax nga jox ko ko fekkee na mais moom fekkeele wut xam na koo xamoon ne xamoon na ni yow fekkeele na mais moom fekkee wut kon nag yu ma la mayee xéewal ak fekkee fukki weer ak ñaar lu ne xew fi may la xéewal ak fekkeele la nga xamoon yàquma ko kon nag domp ci nga seet ñi fekkee te fekkee wuñ nga jox leen ci di juróom-ñetti kaa yi nga xam ne ku ko réglé ci société bi lépp dox muy innama sadaqatu lil fuqaraa wal masaakin waaye xooral lu tax ma ne la xooral dama bëgg nga mos xiif mos mar ba bu ëllëgee bu ñu taxawee sa kanam dama xiis damaa mar nga ne ko mosoon naa ko ak a métti doo ma ko wax de tey nga teqalikuk sa xiif bi de day nga tekkali ko sa marami de motax tax mu symbole ci ko symbole ba moy bo jeexaleen sa muram koor muy tek na yow at mi nga motax mu ne kon xoral waye mu ne hajal ne néegab yalla ba nga mositu mu rànke wan sa gannaaw sa sa njabot gannaaw demal nga xottu demal nga dox demal nga wër doj demal nga do baganti diggante ñaari bab ya demal ngay sanni doj demal ngay sanni doj ba nga xamne tekki wo dara torox dam toroxal sa bop yi la mooy juróom yi le mooy ponk lislaam yi benn bu ci nekk symbole bu mag la bu nit mën a jàngee lu bëree bëree bare bëri bëri aaya jii nag tey di juróomeeli xooteeb yàlla bi dafa ñëw ci koor mu yaay wal islaam na kutiba alaykumu siyaamu koor moomu nag baat bi boo ko seetee eh, li muy tekki ci luxa danay tekki rek ngëbu taxaw rek dal benn place ngëbu noppi waxoo kenn koor dana ñëw tekki baat boobu nga xam ne dangaa noppi waxoo kenn kooku moo doon koor ak suñu yaaju tedd ja sayyidatuna Maryama mi ne woon inni nazartu saw man lu tax mu ne falan ukallima al yawma insiyan Maryama aaya vingt-six waaye koor dana ñëw tekki ngelaw lu dal ngelaw loo xam ne dafa doon riddi ba ci kanam mu dal muy rukudu riix wa imsaakuha anil hubub ngalaw lo xamne ne defu defut dara dafa dal ñepp ne ngalaw li dal na kon su boba lola day tekki koor waye koor dana tekki dahaba jo xamne yeyetul lahabam ga don yey yéey ci si garab mu ne mett yéeyatul defatul dara arab yi wax ne saamati daabatu loolu danay xam taxaw defatul dara euh, lekkatul defatul dara waye sax danañ wax manam koor namu ci digg bëccëg da ngay dégg ñu ne masamu samsi ay tastawi fi mun sa fi nahaar mu nekk ci digg bëccëg moom nga dégg naabiqa ca wayam wa xaylun siyaamun wa xaylun xayru saaimatin taxdal taxtal xijaaji wa xaylun taalikul lu jamaa kon loolu la naabiqa di wax ca wayam wa xoor fas yoo xam ne ña ngay yëy seen laxab ak fas yoo xam ne yëyuñ seen laxab nga lekkuñ dara ña nga taxaw rek temm yëngatuwuñ defuñ dara ca kon loolu lépp ma ko cay tudd kon baat bi loolu lay tekki maanaam ci luxa wax naa la ko koor nag boo ko seetee ci alquran baat bi rek yàlla tudd na ko fukki yoon ak ñett moom la ñëw ci alquran bu njëkk ba dafa ne kutiba alaykum siyaamu moo ci njëkk kama kutiba alladina min qablikum laallakum tattaquuna kooku wax naa la ko léegi suratu baqara aya cent quatre-vingt-trois waaye dana tuddaat koor ne fa man tatawaa xayran فهو خير له لتخ وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون كوكو ماغا سي ايا 184 واذا نوحات كورني فمن شهد منكم الشهر فليصمه كوكو ماغا نيك ايا 185 دنا وخات كورني اخل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم ايا 187 دنا وخات كورني ثم اتموا الصيام إلى الليل آية 187 باتاي نيوم نيار يوم نيوم بوكو آية باتاي تميت دنا وحد كور نفسيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة آه سورة البقرة آية 186 دنا وحد كور نفمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك سورة البقرة آية 186 باتاي yi la yëpp ci koor ak kafaara dana waxaat koor ca suratu nisaa yi wenn yoon la ci ñëw yi ma wax yëpp baqara la waaye nisaa yi dana ñëw wax ca ne fa siyaamu shahrayni mutataabi'ayni tawbatan min allaahi kooku ca koor ak kafaara ga aaya 92 waaye dana wax koor tamit suratu ñëw foofu ñaari yoon fa man lam yajid a fa siyaamu fa siyaamu salaasati ayaamin ذلك كفارة أيمانكم من غشاء سورة المائدة آية كتو النوف بطايت من دغا جسمون يا والسنا آمنوا لا تقتلوا السيدة وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاه مثل ما قتل من النعم يحكم به سواء عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكنا أو عدل ذلك سياما ليتوقع وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ولا عظمه انتقام باتاي ماغا سي سوره مايده آية 95 كون جيس نكو وخات ني سي سوره مريم فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نثرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا آية 26 في سوره مريم دا نكو وخال سي سوره والسائمين والسائمات ayat 35 ca sa dana ko waxaat te mujadala fa man lam yajid fa siyaamu sahrayni mutataabiayni min qabli an yatamasa ayat 4 ci suratul mujadala kon fukki yon yi ak ñet la yalla tudd koor ci alquran ba alquran jeex dootoo gisati koor mukk ci tere yalla bi le jurom ñet yep waxna la ko wala jurom ñaar yep ma nga ca suuratu baqara su ko defee kon wax na ko ca waaye suuratu nisaa yi dana fa tudd koor wenn yoon fa siyaamu shahrayni mutataabi'an tawbatan min laa waaye tamit suuratul maayida dana fa tudd koor ñaari yoon fa man lam yajid fa siyaamu salaasati ayaamin ak fa muy waxee ne yaayol sam laa taqutulu sayda wa antum xurumun dafay laay jay jeexee fa muy waxee ne siyaam man li yasuuqa wabaala amrihi bam mu jeex ko gisati Mariama ben yon fa ima tarayna min basari ahada laxsa ben wasaa'imina wasaimat mu jaadale ben fa man lam yajid bo calculer lepp mu dox la fuk yon ak ñatt yi la baatab mu ci alquran kon koora ngoog mi yalla faratal ci ñun julit ñi ñi war ko taxawé diko def niko ko suñ borom bi santane ma wax la baat bi li muy tekki ci luxa wax la tamit ñaata yoon la ko suñ borom bu màgg bu tedd bi la tudd tabaarakallaahu ci téeréem bile yépp wax naa la ko ci su ko defee nag yàlla farataal ku ci ñun kuti kutiba bi maanaam furida waaye wax naa la ne kutiba foo ko fekk rek la muy farataal bakkan da koo sit waaye bu ko ca xel dimbalee rek dana xam ne loola muy sib moo gën ci moom téeméeri junne yoon kutiba alaykumul qisaasu kutiba alaykumul qitaalu kutiba alaykum ida hadara mul mawtu kutiba alaykumus siyaamu demeet waaye fekk na ala kulli haal li muy sib biñ ko ko teralee rek biñ ko ko leeralee rek dana fekk moo gën ci moom koor nag lu bëree bëri ngëneel la yonent bi nee na koor ala kulli xaal dafa dafa ñëw di pakk boo xamee day protéger nit ki ba mu teree koo def lu bon bu la nit réeree fekk yaa ngi xoor ba mu bëgg a xeexa yow mbaa mu lay saaga jël defal koor muy sa pakk nga ne ko man dama xoor yonent bi nee na xasaw ak gémmañ ak ku xet ga moo gën a teey ca yàlla misk ki ba baxi lekkam baxi naanam ak bànneexam ngir man du ma jël du ma ko wakkil kenn mu ko koy fay koor googa tamit su ma ko xasee nangu du ma ko fayee kenn maa koy fayal sama magasin yiw yi kon foofu wax na njariñal koor ne assiyaamu junnatun fa ida kaana ahadukum saa'iman fala yarfusu wala yujhal wa in imri'un qaatalahu aw saatamahu falyaqul inni saa'imun maratayni wallazi nafsu muhammad bi yadihi la xaluufu fami saa'imi atyibu inda allah min rixil miski يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي الصيام لي وأنا أجسي به والحسنة بحسر أمثالها xadis la bopp Buxaari yu muslim imaam Ahmad Abu Daawud Nasaayi ñoo solo xadis bi yonent bi tamit wax ci njëriñal koor ne bu yowmal qiyaamee xoor day ràmm kii ko doon xoor moo ko alquran yëpp ñooy sob rob ñooy sol robu avocat kenn ku ci nekk ñëw di la layal alquran ne. terexoon naa ko ay nelawam mu may naafilaa di ma jullee koor ne terexoon naa ko bànneexu lekk ak naan mu taxawee ma yow yàlla dimbali ma sama client bi yàlla ne leen yéen ñaar gañe ngeen seen projet bi yóbbu ngeen seen client bi aljana yàlla nañ ko yàlla defal mu ne assiyaamu wal quraanu yasfahaani lil abdi yowma alqiyaamati yaqulu siyaamu ay rabbi manaxtuhu taama wa shahawaati bin nahaar fa safani fiihi wa yaqulu alquran manaatuhu nawma bil layli fa safani fiihi fa yasfahaani hadis la bopp boo ko bëggee xool damay xoole ko ci imaam ahmad indi na ko mu nekk sanadu boo xam ne bu wér wér a la waaye tamit abi umaama mu ne dikkal naa yonantu bi ma ne ko digal ma jëf joo xam ne su ma ko defee dem aljana mu ne ko mu ne ma aa xalayka bi sawmi fa innahu laa idla lahu demal nga xoor xamul lu mel ni moom ci mën a musal jaamab yàlla bi ci safara lu mel ni xoor amut mu ne ma ñëwalaat ko ñaareelu yoon ne ko wax ma loo xam ne su ma ko defee mukki ci safara mu ne ma alayka bi siyaam demal nga takkoo koor abi saxiidil xudri yu mu ne too wax ne xamul kenn kuy xoor benn fan ci yoonu yàlla loolu ba dana ko soril safara walis xar-xaramam ba lu ma juróom-ñaar fukki lool yi laa yasuumu abdun yowman fi sabilillah illa baada laahu bi dalika al yowm annaar an waji sabina xarifan hadis la bopp mbooleem juróom juróom-benn téere yi nga xam ne ci la ñooy téere yi gën a wér ci hadis ñëpp ko andi Abu Daawuda dong moo ko andiwul Nasaa yu andi na ko Tirmisi yu na ko waaye tamit Ibnu Maaja andi na ko Buxaari yu andi na ko Muslim andi na ko Abu Daawuda rek moo andiwul hadis boobu kon nga tekki ne wér na ah Sahlu Abi ah, Sahlu Ubay wax na ne. Sahl ibnu Abi Saïd moo wax ne yonentoo ne aljana xam nay porte bu ñu tuddee rayaan ña doon xool rek ñoo fay duggee mi ngi mel ni autoroute bii am na voie yoo xam ne ku xam carte rek moo fay jaar waaye boo xamul carte man ngaa tardé de banque bii xam na porte yoo xam ne ku xam carte boo ñëwee doo rang aéroport xam na carte yoo xam ne ku ko am sa sa sama gënër nga jëm aljana loolu xam na fa moo tax mu ne inna lil jannati baaban yuqaalu lahu rayaan yuqaalu yowma alqiyaama ayna saaimuun fa ida daxala axiruhum uxliqa dalika al baab wala uxliqa daaka al baab mu ne bu bu gaa yi duggee ba ñu mujj a dugg dugg rek ña xooroon ñu jël buntu booba porte ba tëj ko xadis la bopp buxaari yoo muslim yépp ñoo bokk indi xadis boobu. yonentu bi nee na tamit abi darda moo génnee xadis bi ku xoor benn fan ci yoonu yàlla yàlla dana dox sa digganteeg safara. xandax mooy sa mooy mooy pax mu yaatu moo xam ne mu gudd ci xóot te yaatu man saama yowman fi sabilillah jaala laahu bayna wa bayna naari xandaxan mu ne dégg na xaswatu xandax ne ci xilaat ci xilaatu eh, eh, tabaarakallaahu eh, perse boobu salmaanul farisi yu bañ gasoon pax ma ba gaa yi mënuñ ca dara mu ne dana ko solal kama bayna samaay wal ardi xandax goo xam ne nag bokkut ak xandax goo ko de dafay sori ni diggante asamaan ak suuf waaye safara kay kum sori diggante asamaan ak suuf am pax dox sa diggante ak moom nga mucc ca mu ne benn fan ku ko xool ngir yàlla rek danga xam lii yàlla nañ ko yàlla defal yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallama bu weeru koor ñëwee dañuy hubbilu buntu yërmande yi tëj lu buntu safara yi jéngalu saytaane isa jaa ramadaanu futtihat abwaabu rahma wa xuliqat abwaabu naari wa sulifati sayatinu muslim rek moo indi hadis boobu boo demee da nga ko ci fekk hadis ma la a jàngal sànq Ah, moom man saama yowman fi sabilillah imaamu tabaraani indi na ko boo ko demee nga seet ko ci téere bu ñu si awsat ah, da nga ko ci fekk muy hadis boo xam ne bu wér a wér la kon nag bu masa weeru koor masa na ñëw yonent bi dafa ñuy félicité ne ataakum ramadaanu shahrun mubarakun faradallahu alaykum siyaamahu tuftaxu fihi abwaabu samaai wa tuxlaqu fihi abwaabu aljahim wa tuxallu fihi መረደቱ ሸያጢን ሊላሂ ፊህ ለይላ ሊላሂ ፊህ ለይለቱን ኸይሩን ሚን አልፊ ሽህሪን ማን ሑሪማ ኸይሩሃ ፈቀድ ሑሪማ hé hé yonent bi daal bu weeru koor ma saana ñëw day félicité jullit ñëpp ne weer weeru koor ñëw na de weer wuñ màggal barkeel ko de yàlla farataal na ci yéen bëccëg yeeg ngeen xoor ko de danañ dañ dañ cee hubbi bunti asamaan tëj ca bunti safara gàqlu maanaam seytaane yu féttarlu ya guddee nga ca goo xam ne moo gën junne weer ku ko yàlla xeñ xeñ na la xiwu rëy muy laylatul qadri yàlla bu ñu ko yàlla xeñ moo tax weer wi mosaan a jot saaxir ba waykat ba dafay wax ne yaa sëhra siyaami hee fadat ka nafsi mu ne ko yow weeru koor gi jotee naa la sama bakkan bi le gaa yi kon dañ daan way di wax lu rëy ci loolu kon nag weeru koor a mem lo na la hadis yi ba nga ne man damay woor yep tay ma andi la tarhib nak ragal lola, bo ci dog sahabi yu nena ku bahi kor weru kor te feebaruloo yaa gën a bon ab kat ku sax ci njaaloo yow mu dog ba ci ku weru ben fan ya ko gëna bon ya gëna bon ki sax ci nan sangara motax sax dañuy sik yow ci sa dañuy njortu ne nekk na ci yow moomu dagg ci weeru koor ak kàccoor gu bona bona bona bon xadiis yu bari wàcc nañ di leeral tëkkug yàlla ci yow mi dog ci weeru koor te xamuloo ngànt tëkkug yàlla ci yow ci safara abi hurayra mu ne maa dégg ci runtu mu ne képp ku dog benn fan ci weeru koor te amuloo benn yolombal feebaruloo wallahi mënoo koo fay sa àdduna bi yëpp di def ci sa dund yëpp boo ko xooroon wala li def ci àdduna bi yëpp boo ko doon xoor mënoo fay fan wax na dëgg fan boo fayati beneen la tudd waaye mënta tuddati bis booba bis ba ba yowmal qiyaam du tudd ñëwati man aftara yowman min min ramadana min xayri ruxsatin wala maradin lam yaqdihi sawmu dëhri kullihi wa insaamahu hadis la bopp tirmisiyu mu ko génnee abu daawuda nasaayi ibnu maajaha ibnu qusaymata yëpp nee nañ hadis bu wér wér la abu umaama albahili yu mu ne maa dégg yonent bi ne baynana ana naimun ataani rajulaani fa axasa bi dafciya fa ataya biya jabalan wacran fa qaala iscad fa qultu inni laa utiiquhu laa utiiquhu fa qaala innaa sanusahiluhu laka fa sacidtu fa idaa kuntu fi sawaayil jabali idaa bi aswaatin shadiidatin قلت ما هذه الأصوات قالوا هي عواء عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقبهم مشققة أصداقهم تسيل أصداقهم دما قال قلت من هؤلاء قال الذين يفطرون قبل تحلة صومهم cey hadis la bopp demal nga seeti ko tabaarakallaahu ci kutubu hadis yëpp da ko ca fekk bukaari yu muslim ak yu mel ni ñoom yonent bi nee na benn bis dama mel ni kuy nelaw ñaari góor ñëwal ma téye samay përëg bañ yegg ci aw doj wu kekk ñu ne ma yéegal ma ne leen doj wi mënuma koo yéeg di ñu ne ma danañ la ko yombalal ma yéeg ba ca kaw doj wa ma dégg ay kàddu yu tar ma ne kàddu yi lan la ñu ne ma mooy yuuxu waa safara ñu ne ma xéegaatal ma xéeg gis aw nit ña nga jël seen si diiti tànk ya aj ko xotti seen sudux ya deret jay sotteeku ma ne ñii nag ñu ne ma mooy ñu dogoon ci weeru koor te fekk koor gi jeex a gut na leen yàlla war a mbugalee xëlëg laa lay wan fii nii yéen ñu topp seen bakkan yi safóor yi bàyyi leen caaxaan di woor yéen mi ne bari leen woor yéen jëkkër yu ñàkk fayda yi sàggan di dox seen jabar yi toggal ñu dee leen woor yéen yambar yi dem ci restaurant yi bàyyi leen seen caaxaan yi tey woor yéen mbëri làmb yi dee leen woor yéen musiciens yi dee leen woor yéen sëfoor yi dee leen woor tabaarakallaahu yéen bureaucrate yi dee leen woor yéen borom ndomba tànk yi dee leen woor yéen sëriñ daara yi dee leen woor yéen jàngkati alquran yi dee leen woor képp ku xóorut koo mën a yaakaar loo mën a yaakaar boo lëggee mbugal nii moo lay xar ëllëg ca safara xamul kenn ku la mën a teqaleeg yàlla ci lii kon nag xoora ngoog ak fooraay ga xoora ngoog ak màggaay ga ñàkk xoora ngoog ak mbugal mu rëy ma muy jural tabaarakallaahu ci képp koo xam ne yaa ngi koy def kon loolu mooy koor ci lennam waaye xoor manta wér lu dafa am ay charte yu tax yalla nanguko waxna la tarhib ya wax la tarhib ya li la tarhib ak tarhib muy qupula ak kanam tarhib ya te lepp yoon wax ko du sama wax legi nak yi nga xamne day tax koor mana a moy nga gebu ci lepp luy andi dok luy dok nak moy lu mana jare ci sa tax yi ba yegg ci sa boli gi rek day waral dok beut la jare, nopp la jare, bakkan la jare. la jare fi fajar xaree ba jant sox fu fa jaaree ba nga yëkku ci sa boli gi rek koor ga day yàqu loolu ngay war a njëkk a bàyyi al imsaak anil muftiraat moom la alquran ne wa kuloo washrabu xataa yatabayana lakum al xaytu al abyadu min al xayti al aswadi waaye nag maa ngi ci nam min al fajri summa atimu siyaama ila al layli baqara aya 187 bu ngu weexee gu ñuul gi nak xaru fa yàlla namu ba nga def la si sisi ba daan def Adi ibnu Hatim ba sax sisi xewagut mu nekkon ko xam dafa yori won ñaari buum nekk ci bir néegam bu xoolee xamé gul leen di lek rek ba leen a xàmmee ba set bu ñew ci yoonu bi ne ko man ma déggut ab wala lu xew man sama buum gi ak gu gi la yo suma rek xamé guma gu weex gi gu ñuul gi lekkaat ma leena xamé ba set mu ne ko xana deggo mu ne ya tabayna lakumul xaytul abyadu khayt al aswad ay way xana deggo mu ci nek mu ne fajr fajri al fajri mo lay xamal ne fajar la ci namu nak moy lek len ba lëndëm ak guddi gi dem leer ak becc gi commencer installer hu ci la ji nak do ra xam li xew sanni ñaari buumam ya kon bu ci ñeuk moy nga bu ci lepp luy andik dok fi fajar xare ba jant so ñaarel ba moy nga yéene هي نجد فورا جيتو قرب فجر با مهندق موم القرآن وما أمروا إلا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء يننتون إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى كون مونتا نياك فوق غنغا هيني حديث حفصة بن فوخ نه من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له كدغو تشكور نجك قرب فجر ca koor goga yalla duko ko nangu kon ponk ba ñaar la bu ñëk ba moy bahi lepp luy waral dok bu ñaarel ba moy ñaar le ala kulli hal ko def rek sa koor ga dana nekk ne lu taxaw taxaw la kon nak ñaar le la nañ ci taxaw koor nak ngari ñu bëree bëree bëri lay lay lay lay lay lay bijjal ka koy def wallahi kor, dana dana dana selal sa bakkan bile ñàkk cee gaaw tilim tilim yu bon yi nekkoon ci sa bakkan bi yëpp boo xooree mu dàqu dala dindi rëy dindi xañaan dindi soxor dindi bëgg àdduna dindi balbal loog rëy waaye dina laabal xol ci mbooleem xeeti jàngoro yu bon yi nekkoon ci xol boo xooree rek koor ga dana dem timit yóbbu xale yooya waaye tamit dana la dimbale ci sa sa sa wàllu santé la nga doon yëg ci mbàqu guy ruux ak tànk yuy métteeg ngir lépp ah, niin niin ya nekkoon ca boo xooree rek dana dem ba loola dàq moo tax xoor ñëpp a ko doon def aadama dafa daan xoor bët bu set weer wu ne ñetti fan yu njëkk dafay xoor ci ñetti fan ñetti fan la ciy xoor fukki fan ak ñett fukki fan ak ñeent fukki fan ak juróom dundam gi yëpp loolu la daan xoor yonentu yàlla ah, daawuda dundam gi lépp bu xore ben fan jëlal ben fan xor ben fan jëlal ben fan ba nim du ju boromam yonentu yàlla yusufa non la daan da fay xor fan jëlal fan xor fan jëlal fan ba nim génn haduna kana nabiyullah yusuf as-siddiq yasumu yawman wa yaftiru yawman fa qiila lahu lima takthuru min asiyaam wa qad jaala allahu qasaa'ina al ardi tahta yadika qaala fa qaala Ah, kalimatuhu as-sahira akhsha an asba'a fa fa fa fa fa unsiya al-ja'iha mu ne hee damaa ragala lekk ba regg ma fàtte ki nga xam ne dafa xiif moo tax daal di ñàkk a xoor damaa bëgg a mos ndax ma ñu xiif ñi waaye feeg ngi yore màngasewu réew mi caisse noire bi loolu la ko wax mu ne yaa ko yore muy comme comme mu réew mi te yow ngay rek mu ne damaa bañaat regg ba fàtte ñi xiif waaye su ma xiifee rek sama xel dañ ñu xiif Omar ibnul Faaruux nekkoon na koo xam ne biiram bi dafa daan xurxuri di yëngatu ngir ak bëri lekk gi mu daan lekk dëw dëw diw diw diw rek fu mu toll buur ba buur buur buur biir ba di xurxuri muy wax biir ba ne ko xarxir aw laa tuqarxir lan tazuuqa laxma xatta yasbaa atfaalul muslimina mu ne yow suma biir bi boo xeboo jooy boo xeboo ñàkk a jooy dootoo lekkati yàpp lu dul doomi jullit ñëpp regg bu doomi jullit ñëpp lekkee ba suur ci ngay door a sañ a lekkati yàpp tey njiit yi njiit a maandu wallahi njiit ñoo baax ñooy njiit ñoo jara moo taxoon saahir ba ne in jaa fi shiddati fi shiddatin qawmun sharaktuhum fi ljuuci aw tanjali أو تنجلي عنهم غواشيها جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منسلة سبحان موليها فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها من والله كيف الخليفة بلا تهد النبي يطمو كهلف هد النبي يطمو قاجين ينتقاج عمر كهلف كما غني قيف من والله kan moo niru Omar ibnu Xattaab ci dëddu àdduna kan mooy garanteeg garlanteeg Omar ci jaar-jaar bu rafet kan moo bëgg a niruloo ko Omar waaye xamut wallahi bakkanam ba soxnaam sa kon ma nga faytu jëm ci lekk nak ak naar mu ne ko fu ma jëlee njëgg su ma ko jëndee ma ko war a jëndal population bi yépp te sama bopp laa ko mën a jëndal kon dama koy xëñ sama bopp ndax comme xëñ naa ko ñëpp kon lii tabaarakallahu mooy maandu koor ñaari xaaj la koor goo xam ne koor ak matière rekk la ak koor goo xam ne kooru cër la kooru matière mooy koor goo xam ne danga xeeñ sa bànneexu pëy ak sa bànneexu biir koor goo xam ne ci biir ak pëy rekk la yem boobu koor nag am solo waaye kooru jawaarix yi nag mooy mbooleem sa cër yi nga xooral walis lépp lu suñ borom bi tere nga dàqal ko sa cër yi waaye fexe boo xooree ci sa biir bi ba doo lekk xoor sa pëy mii ba doo jaxasoo nga xooraaleel bët yi ba duñ xool luñ warta xool nopp ya duñ déglu luñ warta dégg tànk ya duñ dox jëm fuñ warta dem loxo ya du yëkkatiku mbaa muy tàllalu mbaa muy siñe luy lor nit waaye tamit làmmeñ wa na takku xoor ci bañ a jëw bana fen waaye xam na ci ñoo xam ne bu ñu xooree bala ñoo xam benn fan seen cër yëpp xor ba mu mooy ñaari cër rek biir ba rek ak pëy ma ñoo ca des booba koor yàlla xamul ci soxla moom la yonantu bi ne rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi ila al-juu' wal atas wa rubba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi ila as-sahr bëri na ku xoor te kooram nga jëleewu ci lu dul xiif ak mar bëri na ku naafila guddi gi yépp jëleewu ci lu dul ñàkk nelaw muy foq yàlla na yàlla musal mu ci ñile kon xam naa bu subaa ci waxtu wii boo ma toppee nag ma sofag yow ci koor ndax njariñ li nekk ci koor dafa bëri lool te yaayu hay ji yàlla wax bàyyiwut ci dara ay xàtte yu bëri yu xóot a moo tax du mën a jeex tey suba ci waxtu wii lay doon boo ma toppee ci kattanal yàlla ma sofag yow li ma sosag yow wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa rahmatullahi wa barakaatu.